ci ca salaamaaleykum mbokk internet yi safoo di seetaan sit bi di wasaare société ginnaaw ba ñu leen nuyoo euh, ziar leen bu baax a baax comme ni ngeen koy gisee rek ci image yi ñu ngi fii parcelle unité quinze euh, benn dal rek moom moo daal di daanu ni ngeen koy gisee si image yi nag sapeur ñoom ñu ngi fi taxaw waaye ba jamono yi ñuy àddu ngeen di teewlu rek génneeguñu kenn koo xamante ni rek mu ngi doon dund ci biir kër gi euh, xamaguñu nag ñaata blessé wala ñaata moor ñoo si daal di am waaye dañuy ñaan rek yàlla na si yàlla wiisu ndox mu sedd ba moor bañ ci am ji ngeen di jàkkaarloon nag euh, moom la euh, gis ngeen nit ñi ñu ngi taxaw sapeur yi ñu ngi taxaw ñam tamit ci euh, 11h la ba léegi nag ñoom ñu ngi def seen kéemtalaay kàttan waaye ba fii ñuy àddu ngeen di teew loo génneeguñu kenn waaye comme ñun waa wasaare ñun ñu koy defee saa su nekk mbir bu amee dañ leen di toppal information yi ba tax ñu ngi fii taxaw lu fi jot si ruusini rek bu leen tàyyi dinañ leen ko jukki rek comme niñ leen ko waxee ba tey ñu ngi fii parcelle unité 15 rek ñu leen di waxee woon rek ci ndorteelu wax ji mooy bâtiment bi nga xamante ni moom moo fi daanu waaye ba jamono yi eh, ñu ngi taaxirlu 15 eh, heures jàpp 16 heures fi mu nekk nii moo jot waaye génneeguñu kenn sapeur yi ñu ngi fi taxaw mbooloo mi nag feesoon nañu fii waaye ñi si des ñëpp xaw nañu ñi ñibbi nañ ñeen si des dàq nañ leen ngir ñu mën a randu eh, ngir ñoom ñu mën a def seen i liggéey waaye gisaguñu ñoom ñu génnee kenn si li nga xamante ni moo di bâtiment bi ba tey ji nag ñoom ñu ngi wéyal di def li nga xamante ni moo di seen liggéey waaye ñun waa Wassare tamit dañu ñu wéy di topp li nga xamante ni moo di information bi ko tey gis ngeen am na kenn koo xamante ni sax mu ngi taxaw ni benn xale bu jigéen xam naa sûrement rek ci kër gi la war a dëkk moom mu ngi ñëw rek sumbo ay rongoñam di jooy waaye nag ku ne méttiwul rek daf laa dalul ndax kër gi fi mu nekk nii euh, jot nañu ay information ko ne nit ñi ñu ngi am na ñenn ñoo xamante ni ñu ngi si biir kër gi ñoom génneeguñu leen waaye ba tey xamuñu bilan bi ñan ñoo si euh, ñàkk seen bakkan wala kan moo si ñàkk sa bakkanam wala kan moo si blessé loolu yëpp xamaguñu ko waaye dinañu wéy di topp li nga xamante ni moo di xibaar bi xëy na ñoom ñu paree ci seen liggéey rek dinañu jagleel presse tamit ñu mën a def seen liggéey bu ko defee jotee ñu mën a xam mbir yi naka la demee exactement batiment bi euh, màggetoon na euh, ndax yàgg nañ leen a araftu wala waxuñu leen dara ñu fi nekkoon tamit kañ lañ fi dëkk. ñoom ñoo des ci biir kon ça veut dire que loolu euh, lu méttee métti la wax dëgg yàlla di leen fàttali rek ministre bi daal di day ñëw moom itam ngir teewee mbir mi nga xamante ni jamono ji moom moo am mu nekk nag lu métti wax dëgg yàlla lu lu daw yaram wax leen rek sànq gis ngeen waa ji nga xamante ni moom moo ñëwoon bañam nag di jooy ndax naxaar bi nga xamante ni peut-être euh, fekk na ko fii euh, mbokki internet yi comme niñ leen ko waxee rek fàttali leen ñu ngi ci diwaanu Parcelles Assainies ñu jege lool fi nga xamante ni moom moo di euh, unité 15 di leen wax rek voilà benn dal bu nga xamante ni moom moo daal di daanu daanu nag si kaw ay doomi aadama am nañu nag information yi nga xamante ni jot nañ ko cee dégg wax nañu ni depuis 10 heures la woon ba 15 heures am nañu nga xamante ni ñoom ñoo des ci ci suuf jamono ji ba tey génneeguñ leen xamaguñu nag euh, sapeur pompier lan lay xaar pour mën a génnee ñooñu nga xamante ni ñoom ñoo des ci euh, des ci suuf loolu nag nekk information yi nga xamante ni ñu ngi ko rek daal di nangoo ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo fekkee mbir mi euh, am na benn waay bu nga xamante ni sànq bëggoon na def témoignage mais dégg ngeen li nga xamante ni wax na ko nee na moom da doon romb dégg bruit bi daal di taxaw wax ni nag loolu depuis 10 heures la woon te ba tey wax nañu am na ñu nga xam ne ñoom ñoo des ci suuf mu nekk loo xamante ni wax dëgg yàlla lu lu métti métti métti la voilà euh, comme ni ñu leen ko waxee rek ñu ngi nii taxaw fi nga xamante ni moom moo di rek euh, ci trottoir bi ngir xaar ay information waaye tamit xaar ministre bi est-ce que dina yëkkati ay kàddu ndax jamono ji mi ngi waxtaan ak préfet aussi mi ngi waxtaan euh, chef bi nga xamante ni moom lañ jiital jamono ji muy njiit ci sapeur pompier taxaw fii di ko expliquer mbir mi naka la demee ak peut ñi nga xam ne ñoo ci am ay gaañu gaañu gis ngeen comme ni ngeen ko gisee noonu rek euh, sapeur pompier ñoom ñi ngi dugg di génn di waxante ci seen biir euh, ñi ngi ñi ngi jaabante ñi ngi dugg di génn mm, gis ngeen ngeen koy gisee noonu am na benn euh, koo xamante ne ni peut-être xaw nañu ko mel ni ku xëcc bàyyiwaat voilà ni ngeen koy gisee ak seen tenue yi groupe ci ay sapeur pompier dugg nañ ci biir kër gi génnoon nañ ñu ngi leen yéen ngeen ñu ngi leen gis noonu ñu sol ay tenue yu orange dugg ci biir génnaat groupe am ñeneen ñu nga xamante ni ñoo taxaw te porte oto yi pour euh, bu ñu sauver ay blessé mën leen a dugal directement ci oto bi euh, ci sutura euh, jamono ji nag lii moom mën nañu ne jural na tiitaange bu baax ñi nga xamante ni ñoom ñoo jàkkaarloo ak géej gi parce que kër gi nga xamante ni moom la ñu gis jamono ji mu am li nga xamante ni wax dëgg yàlla moom mooy accident bi gis ngeen fichier yi ay fissures yu bëree bëree bari moom lañ fiy nemmeeku te mën nañu ne aussi kër yi mu dendal presque yëpp dañoo euh, xaw a màgget parce que gis nañu seen miir yi ni mu xaajaloowee ngeen koy seen ni euh, bu baax a baax a baax mu mel ni nag ñi nga xam ne ñoo ci war a jël seen matukaay aussi war nañ cee gaaw ngir mën a peut-être sauver Euh, li nga xamante ni wax dëgg yàlla moom nañu nemmee ko parce que dafa nekk loo xam ne dafay répété wu c'est pas la première fois ñu koy gis ci réew bu Sénégal euh, te saa su nekk rek euh, dañuy gis ni sax buy am distance yi du bari torop wax naa leen ko sànq li nga xam ne moom moo xewoon Médina ba am ñu ci ñàkkoon seen bakkan xew Kër Massar am ñu ci ñàkk seen bakkan ñu gisaat ko fii unité 15 ci Parcelles Assainies mu nekk lu métti métti nekk aussi lu doy a doy waar xanaa rek di wax rek ñi nga xam ne ñoo ci am ay blessure bu dee am na yàlla suñu borom fëgg seen bopp dëkkandoo yi aussi ñoom ñëpp ñu ngi ñëw taxaw kenn mënul am accès si biir parce que sapeur dañoo tere euh, wala police dañoo tere kon euh, ñu dugg am accès si biir même ñi nga xam ne ñoom ñoo di euh, journaliste yi aussi dañ leen a tere ngir ñu dugg ci biir ñëpp ñu ngi ci trottoir bi di xaar ministre bi génn wax waaye tamit di xaar njiit bi nga xamante ni bokk na ci sapeur wala police rek def déclaration wax li nga xamante ni moom la xam kon ci ci accident bi. bi mu ngi noonu di arrière waaye li nga xamante ni moo di caterpillar bi moom mi ngi def kemt lay nam ngir mën a euh, sulli euh, li nga xamante ni moo di suuf si wala sax xeer yi nga xamante ni moom moo jot a wàdd ci biir ngir ñu mën a génne ñi nga xamante ni ñoo nekk si biir kër gi wax naa leen ko sànq euh, kër gi nombre bi xamaguñu ñan ñoo si des ak ñan ñoo génn waaye nag ñoom ñu ngi wéyal di def li nga xamante ni moo di seen liggéey. Euh, nee ñu nag ci kanam tuuti dinañ ñëw rek ngir waxtaan ak li nga xamante ni moo di presse bi bu ko defee yéen askan bi nga xamante ni yéen a ñuy seetaan yéen tamit euh, ngeen mën a comprendre bu baax a baax ngir xam ñaata blessure ñoo fi am wala euh, ñaata ñoo fi ñàkk seen bakkan kon yëg ku ñàkk bakkanam sax yàlla bu mu ci am ñaanuñu koy yàlla waaye lu si mën a am rek dinañ leen ko leeralal ministre bi tamit yegg si na léegi moom tamit mu ngi si biir ngir mën a xool situation bi actuellement fi naka la fi demee nekk na loo xamante ni compliqué na ci ñi nga xam xamante ni moo di ngi fii Parcelles Assainies unité bi nga xamante ni rek moom moo fi daal di daanu ba tey ji amaguñu nag benn solution ngir génnee ñi xamante ni ñoom ñoo nekk si biir bindi nañu nag benn oto ndaraan bi nga xamante ne ni bu ngeen sàncee bu nit ñi amee sàncee da ngeen koy gis lu bëri mooy tibbi suuf si di sotti indi nañu ko ngir mën a tibb li nga xamante ni mooy suuf si ngir mën a sauver ñi nga xamante ni ñoo nekk si biir bâtiment bi ba tey sapeur yi nag ñu ngi fii di taxaw di wayal di def li nga xamante ni moo di seen liggéey ñun nag ba léegi xamaguñu ñaata nit ñoo nekk ci biir kër gi rek ñaata koo xam ne sax ñàkk na ci bakkanam ministre bi tamit daal dina yegg si léegi nii nee na rek si kanam tuuti di jàkkaarloo ak presse bi ngir mën a def li ni moo di déclaration am ngir mën a wax ak ñoom ba ñu ngi woy di taaxeelu rek lu fi jot a ruusandi rek dinañ leen ko indil dinañu la wax rek ñaata blessé moom moo am ci mbir yi ak kenn wala kenn koo xamante ni ñàkk na si bakkanam rek ne auto sapeur bi bi di nay arrière rek ba ci buntu kër gi ñu maar ci ñu muur ci benn baas ngir génnee ñi nga xamante ni ñoo nekk si biir jot nañu ay information ko rek ne benn maire moo si desoon ak doomam waaye xamuñu ba xam ndax ñàkk nañ si seen bakkan wala euh, ñu ngi dund ba tey information yooyu jot nañu ko ci témoignage yi nga xamante ni ñoom jot nañu wax nee nañ rek benn maire boo xamante ni dafa jóge woon États-Unis rek daal di ñëw fii ngir borog euh, xew ki nga xamante ni moo di benn sëtam moom moo nekk si biir ak benn doomam oto sapeur bi nag mu ngi nii turne na maanaam arrière ba si buntu kër gi euh, baas bi nag gis nga ñun mënuñu xam ba xam ndax ñu ñu si génnee ñu ngi si seen ñu ngi dund wala euh, ñu ñàkk nañ ci seen ba bakkan mënuñu ko xam ndax baas bi nga xamante nii rek muur nañu ko ngir mën a génnee ñi nga xamante ni ñoo nekk si biir kër gi sapeur yi ñoom ñu ngi nii taxaw euh, daal di nañuy dugal ñi nga xamante ni ñoo desoon si biir kër gi ba ñoom ñu ngi noonu di waaj a waaye ñun ñi nga xamante ni ñoo yëngu si mbir presse bi xamuñu ba tey ñi nga xamante ne dugal nañu leen en tout cas mbir mi yàgg na euh, di 11h ba léegi ñoom ñu ngi fii di def seen kéemtalaay kattan ngir mën leen a génne waaye fi mu nekk nii yaakaar naa ne euh, sotti na ndax génne nañu leen ba dugal leen ci li nga xamante ne moo di auto sapeur yi waaye xam naa si kanam tuuti rek bu ñu defee seen déclaration dinañu xam ñaata nit ñoo si ñàkk seen bakkan rek wala blessé yi ñaata la toll ñu ñaan rek yàlla bu ci kenn ñàkk bakkanam waaye fi mu nekk nii gis nga moom euh, mu ngi sumboo ay rongoñam rekk di jooy ba léegi ñu ngi topp mbir yi. dinañ leen ci indi lu leer léegi incha allahu yi bu ñu paree rek ci def liggéey bi nga xamante ni ñoom ñoo ngi koy woyal koy gisee ci seen ci image yi maire bi moom mu ngi sumboo ay rongoñam rekk di jooy euh, xam naa sûrement si kër gi la dëkk wala mu nekk dëkkandoo ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekkoon ci kër gi oto ndaraan bi nag yéen a ngi koy seen moom tamit xam naa dafa bëgg rek daaneel li nga xamante ni moom moo des si kër gi ndax fi mu nekk nii wóoratul bu ngeen déggee ci ñi nga xamante ni jox na jot nañu joxe ay ay témoignage ci mbir yi moom euh, fi mu nekk nii nekkuñu ci sécurité seen xel dalul ci li nga xamante ne ni moom moo fi xew ndax kër gi nekk na loo xamante ne ni lu màggatoon la waaye tamit maire bi nga xamante ni moom moo nekkoon ci biir kër gi rek euh, mag la ak benn doomam ñoom ñoo desoon ci biir waaye fi mu nekk nii euh, sapeur daal dina koy génnee ba oto bi mu ngi noonu di waaj a départ bu ñu paree ñoom dinañu mën a def li nga xamante ni mooy déclaration ci presse bi ngir ñun tamit ñu mën a am lu leer mën a xam ñaata blessé moo ci am wala mbir yi Eh, fu mu fu mu mujjee oto baa ngi noonu di dem oto baa ngi noonu waaye xamuñu xamuñu exactement. Eh, ngeen koy gisee rek ci li nga xamante ni moo di image yi gis ngeen oto ndaraan bi moom mu ngi wàccee li nga xamante ne nii rek eh, partie bi nga xam ne moom moo desoon ci kër gi ndax xam naa sax loolu moo gën a wóor fi mu nekk nii xel dalul ci li nga xam ne moom moo si des sax ay nit di dëkk wala ñuy jege wantoo ak moom ndax partie bi comme Euh, ni mu daanoo nii euh, beneen parti bi la ñu bëgg rek kur yu wàccee ko mbir yi nag comme ni ma leen ko waxee ci samay ndoorteel wax mu ngi xew fii parcelle unité 15 benn batiment boo xamante ni rek moom moo fi daal di daanu ay 11h ba tey 16h euh, jot na ñu ngi soog a génnee nag ñi nga xamante ni ñoo desoon ci biir kër gi mu nekkoon benn maire rek boo xamante ni moom desoon ci biir ak benn doomam wax naa leen nag jamono yi xamuñu ba xam ndax am na ay blessure wala ñoo xamante ne ñàkk nañ ci seen bakkan waaye ci nañu ko jël ñoom nee nañu euh, maire bi moom euh, amul ñenn ñoo xamante ni blessé nañu ci waaye xamuñu ba xam ndax maire bi euh, moom mu ngi dund wala dundul ak doomam bi nga xamante ni moom moo si desoon waaye oto sapeur bi gis ngeen génnee na ko ba dem na fi mu nekk nii nag dañuy orienté wu xam naa ci kanam tuuti rek dinañu ñëw ngir mën a waxtaan ak li nga xamante ni moo di presse bi ngir wax leen ndax ñaar ñi nga xamante ni ñu rek ñoo desoon ci biir kër gi ñu ngi ak seeni bakkan ba léegi wala yàlla def euh, en pleine réunion du Conseil des ministres, dès qu'il a été informé de la situation qui prévaut ici à l'unité 15 des parcelles assainies, il m'a instruit d'arrêter immédiatement ma participation au Conseil des ministres et de venir directement ici euh, sur les lieux pour être au chevet des populations et apporter le soutien de l'État. Mhm. Euh, je voudrais profiter de la situation pour vous rappeler Nous venons de finaliser la stratégie nationale de protection civile du Sénégal. Euh, avec euh, les autorités territoriales, nous avons également identifié tous les bâtiments menaçant ruine dans le pays sur toute l'étendue territoire national. Et la stratégie nationale de protection civile du Sénégal sera très prochainement présentée en conseil interministériel, en conseil présidentiel et en conseil des ministres pour que des décisions fermes soient prises sur la question. Et aussi, je me réjouis de la présence euh, du préfet, du sous-préfet, euh, du maire qui nous a rejoints, des pompiers, de la police et de SAMU. Donc les premiers secours ont été apportés à temps, dès nous avons été informés dans les décombres, le faille national a été fait, les corps ont été extirpés des décombres euh, et le pompier vient de les amener directement. Donc c'est une situation que nous regrettons et qui appelle aussi en tout cas que chacun eh, essaie de prendre ses responsabilités pour qu'une pareille situation quand même eh, eh, ne se reproduise plus. Par rapport au bilan Bon, au bilan, j'ai échangé avec le préfet, avec la police tout à l'heure. Nous avons identifié deux cas de décès pour le moment. Et je pense aussi que ce sont les deux corps qui étaient dans les décombres. Ces deux femmes, euh, c'est la famille Camara. La première dame est âgée de 94 ans, je pense, et la deuxième de 64 ans. waaw ñu ngi leen di sant leen gërëm di rafetlu seen taxawaay ak seen teewaay ah président de la république monsieur Macky Sall moo ñu fi yebal daar daar gannaaw bu ñu nekkee ci ndaje bu jëwriñ yi bi mu yëgee xew-xew bi am fii ci Parcelles Assainies unité quinze ci la ma woo ne ma naa arrêté sama participation ci conseil des ministres te ma ñëw fii directement indi taxawu état bi indi jàppale état bi indi ko famille Camara mm-hmm. ma leen di fàttali itam euh, nguur gi liggéey na ba pare ci stratégie nationale de protection civile liggéey nañ ci ba pare dinañ ko présenter conseil interministériel ci lu gaaw ci li lu gàtt nañ ko présenté itam euh, conseil présidentiel na jàll aussi conseil des ministres ngir dogal yi ñu war a jël dogal yu mucc euh, euh, ayib yu am solo <laughs> ngir mun a dàkkal lu mel ma leen di fàttali itam lim nañ en tout cas bâtiment yi nga xam ne yëpp dañuy menacer ruine ci njiitu ci réew mi ba mu daj liggéey bu am solo boobu ñu ngi ko def ak administration territoriale préfet et ci gox yi ñooñ ci jàppale ba tey jii may wax ak yéen xam nañ exactement ci réew bi ñaata batiment lañ fi war a daane mhm. loolu aussi am nañ ci liggéey boo am solo bu ñu def ba pare mhm. leneen li boobu woon wax mooy rafetlu teewaayu état fii ñu ñëw ngir jàppale famille Camara taxawaa Parcelles Assainies li tax mu wax ko bi ñu ko yëgee automatiquement la départ li ma yëg see fekk naa fi préfet bu gox mu ngi fi taxaw mu ngi nii sam wet fekk naa fi sous préfet gox bi itam fekk naa fi waa police ci lim bu bon sëkk fekk fi waa pompier fekk fi itam waa sami maire bi itam mi ngi fi taxawaayam rafet na ñu koy rafet na donc mun nañ ne ñëpp ñu ci waroon jàpp. jàpp nañ ci ci daar daar. suivi bi nga xam ne aussi état war na ko indi incha allah bu soobee yàlla. état dina ko andi ba mu moom sëkk dina ko andi famille Camara dina ko andi population Parcelles Assainies dina ko andi aussi ci réew mi euh, mais ñu gis ni euh, lii li muy faral di am bari na est-ce que euh, nguur gi jël na ay mesures pour xool ñi nga xamante ni ñooy tabax kër yu mel nii jege géej gi ak yi nga xamante ni jegewul géej gi léegi rek maa ngi waxtaan ak préfé bi ma ne ko conseil des ministres bari na li président di wax ci wàllu protection civile ci yaatal waaye ci tënk ci batiment yi nga xam ne war nañ xoolaat taxawaay mhm. te ci bari exemple yi muy gën di jël yi muy gën di faral di jël Parcelles Assainies bokk na ci fu mel ni Médina fu mel ni Gueule Tapée mhm. nga xam ay bâtiment yàgg la fii dafa tiim géej gi teg ci te fer bi ñu utiliser muy fer six bi ak fer huit bi mhm. mun naa ne fer bu bu jamono weesul mhm. donc euh, soññ nañu en tout cas ci ñu baral liggéey bi moo tax man leen léegi samay kàddu def nañu la stratégie nationale de protection civile du Sénégal ba mu pare loolu guleen la daanaka war nañ ko jëmal ci daje yooyu ma leen limal yëpp muy dajëb jëwriñ yi muy dajëb conseil des ministres ba nga xam dogal yi ci am solo yëpp war nañ ko mën a jël donc président moom lu ko yitteel la euh, réew mi aussi en tout cas état taxawaay bi mu war a def mu ngi koy def. mën nañ ñaata victime moo fi am. ñaari victime moo fi am loolu laa waxtaan ak préfet lool la waxtaan ak maire loolu laa waxtaan aussi ak euh, police. ak pompier ak sami ñi ma fi fekk. Mm-hmm. ñaari soxna la mhm. kenn ki am na ñeent fukki at ak ñeent keneen ki mhm. am na juróom-benn fukki at ak ñeent mhm. ak ñoom ñaar ñoo nekkoon ci biir décombres yi ah, bi ñu amalee liggéey bu am solo bi ak pompier ak police ak ñii ma fi fekk ñëpp génnee nañ leen ci décombres yooyu ba dugal nañ leen ci ambulance bi jëmale leen fi ñu leen war a jëmale donc lu ñuy méttit la lu ñuy ñaawlu la ñu ngi jaale famille kamara bu baax a baax di leen massawu di bokk ak ñoom tiis bi ak naqar bi di ñaan yàlla aussi ñi fi jógee ci anam yi yàlla xaar leen arjana ah yàlla aussi euh, aar en réew mi def fi jàmm def fi sutura def fi yokkute merci di gërëm tamit euh, préfet ak euh, sous-préfet. mu ñëw fekkee mbir bi ñu ngi ñu ngi jaal famille bi. si ñaar dese ñoo am parce cinq personnes ñoo neewoon si biir kër gi. si cinq personnes bi mu amoon ñaar ñoo xam ñoo ñooy mag yi. Mhm. keneen ki 64 ans keneen 94 ans. Mhm. ñoom ñaar rek. ñoo si am ñoom ñoo si seen bakkan rot mhm. euh, gannaaw loolu ñëli yëpp amuñu benn ingratitude amuñu benn problème mais nag au fond ça c'est un problème national si je peux m'exprimer ainsi mhm. nous avons aujourd'hui au niveau de la commune des Parcelles Assainies euh, dénombré 145 maisons dans cette situation nous ce qu'on peut faire c'est d'abord euh, c'est d'abord interpeller les propriétaires. Mhm. Et ça, on déjà fait, ce travail-là. Mhm. Euh, à présent, on attend parce qu'on n'a pas quand même euh, la légitimité de mhm. venir euh, démolir une maison sans pour autant qu'on puisse avoir C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, c'est une preuve. Il faut que les gens puissent comprendre qu'on ne le fait pas pour nous-mêmes, on le fait pareil pour eux. Donc, Taïgi, l'Olaï encore. tey jii Parcelles Assainies ñu ngi dénombré cent quarante cinq maisons cent quarante cinq bâtiments en état vraiment de délabrement très avancé c'est des risques donc tey jii situation boobu lañu ñu am euh, ñun suñu warugal mooy toujours borom kër dañ leen di bind ne leen situation bi moo am si seen kër li ngeen war da ngeen ci war a génne ñu jox leen sommation lu ci des nag nit ki su bañee mën nañu yóbbu yoon yoon nag mooy yéexal mbir moo tax parfois ngeen gis c'est pas parce que nit ñi bëgguñu daaneel mais foog yoon may ñu ne ñu mar ngeen ko def ñu man ko def si noo sinon ñu ko def mais incha allah xam naa dans peu de temps il y de choses qu'on va changer ensemble parce que j'en ai déjà discuté avec le ministre nañ am di waxtaan bu ñuy def accompagnement boo xam ne nécessaire boo xam ne dañu koy defar dañu koy àndil ñu mën a daaneel certains bâtiments yoo xam ne yàlla xam na ni loolu waru tax bëri na fi xam naa ni wax na si commune yëpp am mais man sama commune moom concerné j'en ai demandé 145 incha allah on fera le nécessaire sur pétage ah. ñu ngi di fay. di nan la. Moussa Diallo. waaw nga nekk dëkkandoo ci ñi nga xamante ni ñoom la dal bi daanu euh, naka nga ma ñu mën a indil rek ci ay mbir mi naka la demee. waaw man dama toog sama kër rek ñu ne ma ñu ne ma am na sa ay dëkkandoo yoo xam ne am nañu problème ci seen kër sapeur pompier ñu nga fa police nga fa. alors man tamit ma daal di jóg génn ba ma génnee ma ñëw fekk ne effectivement sama dëkkandoo sama dëkkandoo yu baax yu ma jege la waaw parce que euh, la la famille Camara ma ak seen papa la woon seen seen papa génn àddina ma nekk ak ñoom ak seen yaay nekk ak euh, kenn ki di sama xarit docteur Antoinette Camara Antoinette Camara am tamit euh, am na doom boo xam ne sama doom la. Euh, moom tamit tudd Doué nekk docteur ah docteur en médecine ah, donc euh, loolu moo tax ma ñëw wax dëgg yàlla euh, mu mbetti ma lool mais nag ma teg ko ci loxo yàlla waaw. ñoom xam naa leen xam naa seen yaay seen yaay mag la mu ngi woon États-Unis dafa ñëw nag mais mag la. Euh, dafa naa ne nee nañu docteur Antoinette moo gën a euh, mu des euh, yaay ji yaa ngi nag nee nañ mu ngi woon si salle bi est-ce que tu as vu voilà. ah depuis man depuis neuf heures depuis neuf heures laa ko yëg ah. d'ailleurs d'ailleurs là là je peux en profiter pour dire qu'il faut qu'on qu'on qu'on revoie notre système de secourisme. Parce que de 7 heures, euh, près, plus près de 7 heures de temps pour extraire deux personnes euh, dans une euh, maison dont la dalle est effondrée, Et euh, je crois que c'est trop. Il faut que le, le, système de secourisme au Sénégal soit revu hein, avec des techniciens, des populations, tout ce que l'on fait. Sans, sans, impliquer les, les, populations, ça ne rime pas à, ça, ça ne rime à rien. Les populations doivent, doivent toujours être impliquées. Les techniciens doivent être impliqués et ensemble, ils doivent quand même euh, constituer un bloc euh, pour venir en aide. Normalement, depuis trois heures, de, de, de, ça ne doit de temps pour, euh, pour, pour, sortir la dalle et, et, et extraire les deux personnes qui sont à l'intérieur. Mais près de sept heures de temps, franchement, Alors, il faut que l'État du Sénégal revoie son système de, le système de secourisme. Ah ça, je ne sais pas. Peut-être il euh, y a une méconnaissance du milieu. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'étude en éducation sanitaire, il y a ce qu'on appelle l'étude du milieu. L'étude du milieu est d'une importance capitale. Quand tu arrives dans un, euh, dans, un, dans un scandale pareil, il faut faire une étude du milieu. L'étude du milieu, tu ne peux faire ça qu'avec les habitants ou bien ceux qui habitent dans la maison. Alors, tu as maintenant la connaissance du milieu. Et avec la connaissance du milieu, tu peux intégrer pour maintenant essayer d'agir pour voir le, comment tu dois faire. Alors, les moyens sont avec toi, mais la connaissance du milieu se, trouve avec les habitants ou avec les populations. Voilà. Non, vous savez, l'unité 15, toutes les dalles, toutes les dalles de l'unité 15 sont menacées. Aucune dalle, en tout cas, sauf les, euh, les nouvelles maisons, ou bien ceux qui ont euh, le soin de ceux qui ont pris le soin euh, de, de, de, construire en tenant compte de l'ambre marin. Parce qu'ici, c'est l'ambre marin. Mais en plus de l'ambre marin, Alors, si par exemple, tu ne mets pas le ciment qu'il faut, alors des problèmes. Et c'est ce qui arrive à 97% de ceux qui sont sur le littoral. En dehors de ça aussi, euh, ce, qui aggrave, ce euh, pour qu'il y ait euh, la VDN. Les populations se sont battues Mais quand on la faisait, la population n'avait pas été impliquée. Et puis ils avaient un appareil euh, vibreur, mais qui, qui, qui, secouait les bâtiments. Et c'est cela, euh, c'est cela qui a été à l'origine de, euh, de pas mal de problèmes dans les bâtiments. Si vous faites une inspection dans les maisons, vous verrez que toutes les maisons ont les mêmes problèmes. Ah, ça, je ne sais pas. Je ne saurais vous dire, madame. Euh, bon, euh, il n'y a que Euh, les sapeurs pompiers qui sont à l'intérieur qui peuvent vous dire. Ah, je n'ai aucune information je demande je demande suis curieux comme tout le monde je demande mais je ne vois personne en tout cas pour euh, ce que j'ai vu aujourd'hui je respecte et je loue le système euh, de secourisme D'autant plus que je suis dans le champ de la santé. Euh, j'ai fait du secourisme, est-ce que vous voyez Alors, euh, en tout cas, je leur euh, aurais conseillé de toujours impliquer des techniciens et les populations avant d'agir. Parce qu'ici, c'est un problème de milieu. On ne sait pas où se trouvent les personnes. ceux qui sont dans la maison ou ceux qui connaissent la maison peuvent leur donner une idée de là où se trouvent, doivent se les personnes. Et en ce moment-là, qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire Alors, maintenant, il y a le système euh, euh pour, action, euh, pour action. Le système pour action appartient aux techniciens. Bon, mais les, les techniciens du bâtiment doivent pouvoir, euh, euh, avec euh, par exemple des appareils, mais aujourd'hui ailleurs, mais tout de suite, on aurait eu des grues. Hein? Une grue, une grue aurait tout de suite, tout de suite, tout de suite ramassé les, les les euh, même euh, même euh, même même le caterpillar qui est là pouvait avec par exemple un système de renforcement des dalles enlever les gravats alors donc moi je le souhaite je vraiment je loue beaucoup l'action des sapeurs ils sont très braves mais quand même rien n'est parfait dans la vie et personne n'est parfait. Merci. Et essayons encore davantage de travailler. Merci. Mais pensons toujours à l'unité 15. Pourquoi il y a eu ce problème C'est depuis qu'il y a eu l'installation de cette, euh, de cette route. Hein? La machine, la machine euh, euh, vibreur, euh, alors qui, qui, qui, était en train de, qui était en train de daller le sol, c'est cette machine qui a remué toutes les maisons. Aucune maison, jusqu'à Campbell, aucune maison n'a été épargné. maa ngi leen di fay. Asso la. nga nekk dëkkandoo ak ñi nga xamante ni ñoom la bâtiment bi euh, daanu euh, kii rek maanaam yan nga ñu mën a indil ci ay leeral. ci mbir mi naka la demee. ah ñun dañaa toog ba si yàgg rek. dégg kii bu daanu. gris bi sax lañ ko tegoon mooy maçon yi ne fii mais bañ dem ba ñu génnee mu nekk kër gi ñu daw dugg. bañ demee taseeg doom ji mu yuuxu na maamam ak yaayam ñun ñu daw dugg fekk affaire bi daanu si seen kaw ñu daw yuuxu génn ñun daal loolu ñoo njëkk a dugg foofu te bañ egsee dañaa fekk affaire bi daanu ñu yuuxu ñun tam daw génn ñëpp ñëw mais am na ñu leen doom jéem a secourir mais policiers yi bañ ñëwee dañ leen écarté daal sapeur ñëw ak yëpp ñu nekk fi 11h ba léegi ñu ngi fi kenn génn mu des kenn 11h ba léegi ñu ngi fi kenn na fa des maam seen maam moo fa des moo ah, ndax bu kii bi si bâtiment bi si kaw moo daan si beneen bi mu wàcc ci suuf. ki ah boobu nag gisaguñ ko parce que police kii sapeur yi dañaa nëbb ñëpp. dugal ko si biir am na ba ba léegi mu ngi fa si biir gisaguñ génnaguñ de. kenn a génn de ah kenn gisu ko de instant bi moom kenn xamu si lu mu ne. ñu ngi si biir oto bi daal xamuñu dund na wala dee na instant bi moom loolu. dalee génn kaw dara dalaatu si kaw ndax ñun bañ dawee rek sët bi lañ fekk muy yuux di yëkkati xeer yi ñu daw génn. ci moo wàcc si kaw saal bi si kaw moo wàcc si beneen saal bi ci suuf mu daan noonu la deme te boobu mami maam ja waa ci suuf waaw noonu la demee maire bi lañ ñëw. sapeur teel nañ ñëw waaw teel nañ ñëw. si kër gi la dëkkoon wala. waa mais maam ji état fii la nekkoon mais États-Unis la nekk temps yi daa ñëwoon pour kiiw doomam bi sëtam bi mhm. boobu delloogul nag. Mhm. Mhm. moo nekk ci suufu xeer yi. moom a sauver génn de mënaguñu génn de génn. ah xaw ma de dal bi daal a daanu. temps yi daal kii bi daanu woon du ñëwoon ngeen fii devanture bi léegi nag biit moo daan mm-hmm. kon su ma déggee maanaam mbir mi signalé woon na bu yàgg parce que devanture bi daanu woon na mais amoon nañu des ba tey ci biir ñu ci loolu nga xamante ne jotoon naa am. waaw loolu la moom. Mm-hmm. ah il may lancé. nekk nii daal amatul dara li ñu wax parce que dal bi daanu na ba pare. amatul lu fa des ci. tey tamit nga ñaax ñi nga xamante ne ñoo ci kër yi nga xamante ne ah, kër yu màgget la. depuis ba ñuy defartali ba léegi xam nga kii yu kii oto yu ba eh, ñuy mooy yëngal kër yi. fii moom affaire yi da nga koy muy yëngatu moom. ah waaw fii moom amatuñu sécurité te xam nga géej bi ak yooyu. Mhm. amatuñu sécurité moom mooy. am na ñu dëkk si kër gi ñu ngi nii ci saal bi ñu am nañu xale yi ñu dañaa jàngi woon. non noo non non saal bi rek moo daanu amoon na ñu nekkoon si côté waañ bi benn sëtam bi ak kii doom ji. Mhm. dara loom dara dalu leen waaw kenn dong la seen maam moo fa des moo nekkoon di seetaan télé waaw. merci beaucoup ok merci. lii la am na ñu ngi lay nuyu. sooy leen. ci mbir mu doy waar bi nga xamante ni moom moo fi xew file si parcelle unité 15 muy seen dëkkandoo yi nga xam ne daal bi dafa daanu ci seen kaw nan nga ñu si mën a wax rek. Euh, asalaamaaleykum maa ngi tudd Ibrahima Niang dëkk parcelle. mi nekk suma voisin. chaque euh, semaine maire bi di ma woo ma ñëw foofu di waxtaan ak moom mu jàpp ma comme doomam parce que ma man am na fi presque dix ans mu nekk euh, lu doy waar lu metti vraiment dis na loolu kii wax unité yàlla nag lu mu dogal kenn mënu si dara il faut ñu gëm ko c'est que ñun unité 15 ah, dañuy am problème parce que bu ñu defar tali bi vibre bi sonal nañu trop. poussière bi sonal nañu trop machine yi dañuy yëngal man dem naa sama batiment dal bi tooj naa lépp génne locataire yi yëpp tooj ko pour reprendre ko parce que bu njëkk bu ñuy tabax suuf géej lañ doon tabaxee te suuf géej dafa am xorom day ronger fer bi donc euh, loolu daal moo am daal. nga ni moom moo desoon si biir génn na wala. waaw euh, d'après li ma dégg doomam moo njëkk a génn. mais à l'instant dëgg naa maire bi génn na xaw ma nag parce que oto baa ngi di arrière ñaaw kat ñoom la ñuy génnee nii xaw ma nag ndax dund lañ wala dunduñu daal waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah.